fii am na ay yeneen site web yoo am ay xibaar ci naka ngay duggee ak génn ci dëkku New York gisal ab gisal sa ambassade wala sa consulat xibaaru jokkoo ngir ambassade yi ak consulat yi jàppandal nañu ci internet bi bàyyi ko ci département wu état bi ci sit bii di https deux point slash slash travel point state point gov gov slash content slash travel slash en slash consular consular consular notification consular notification and access point html bureau maire bi bu wàllu aji gàddaay yi mayor's office of immigrant affairs moer mu ngi fi ngir jàppale jàppale la jot ci ndimbalu dëkk bi walla askan wi ngir xibaar yu gën yaatu wooteel ci buumu jokkoo wu ask ask ask majuscule la maanaam ask m o i a hotline ci numéro bii di 212 788 76 54 altine ba àjjuma li ko dale ci huit heures ci suba ba cinq ci ngoon wala nga yónnee ab bataaxalu internet ci ask moia arobase cityhall point nyc point gov mën nga gis ay xibaar ci sa mënuk tànn ngir jot taxawu ci koppar ak yeneen pexe ci internet bi boo demee ci site bii di https slash slash www point nyc point gov gov slash site site slash immigrants slash city tiret service slash cash assistance point page lii di LGBTQ plus tegtalu pexe ngi ni da ngay ni dem ci https deux point slash slash point NYC point gov slash service slash for for tiret the THE tiret public PUBLIC slash LGBTQ tiret guide guide guide slash overview o v e r e bi ngir dakkal fitnaal jigéen ak nit ci tànneefu awraam maanaam and domestic and gender based violence ñu ko ñu di ko dàkkantal ci END GBV END GBV su fekkee ne danga yaakaar ni dañu laa def fitna gu ju euh, gu jógee ci sa sëy sa njaboot sa maam sa coro sa toppkat sa awra jaay nit na nga seeti site bii di END gbv ci https deux points slash slash www point nyc point gov gov slash site site slash ocdv slash get get tiré help H E L covid C O D tiré 19 tiré update e ngir ndimbal ak taxawu. commission wu àq ak yelleefu doomu aadama bu dëkk New York ci biir dëkk bii kenn mënula xaajatle ndax sa nekkinu gàddaay walla ndax dëkk bi nga bàyyeekoo ci liggéey dëkkuwaay ak barabu daje yi lu ci mel ni marché yi l'hôpital yi ak cinéma yi am nga say àq te kenn du ci xool sa nekkinu gàddaay ay xibaaru yu yaatoo ngi fii bu ngeen fa demee mu di https deux point slash e slash www point nyc point gov slash site slash cchr slash law slash protection tiré based tiret on tiret immigration tiret status tiret and tiret national tiret origine tiret en point page bureau état New York ngir américain yu bees yi New York State Office of New Americans ngir am ay xibaar ci wàllu mëneef yi jàppandal ci joxekatu mëneef yi bàyyi ko ci mbooloowu askan bi mbootaayu nekk ci dëkk bi wooteel ci numéro 1 800 566 76 36 wala nga seet ci seen site web dem ci internet bi mu di https deux point slash dos point ny point gov slash office office tiré new tiré aem americans point d'interrogation UTM médium égale trois cent un et UTM source égale www point n e w a m e r i point n y point g o v néegu téere public maanaam librairie am nañu ay néegu téere public ci biir dëkku New York gisal xibaar ci barab yi ak waxtu yii fi ci https deux point slash slash www point nypl point org slash https deux points slash slash www b k l n l i b r a r y point org slash https www point Queens Library Queens Library Q U E E N S L I B R A R Y point org slash